waaw di si jiital sant yàlla rek di sant yàlla te delloo lépp si moom di ko sant bu baax waaw métti na mais sant yàlla rek daal sant yàlla si lépp parce que mënoon naa gën a métti mënoon naa nekk suñ bakkan mënoon naa nekk lu gën a métti ndax lu bon bon am na lu bëri lu ñu rawalee te bu ñu rawale wutoon dara tamit dañ ciy sant yàlla ah loolu moom comme li ma la wax rek daanaka ñun lakk gi duñ ko giñ kenn organisation dëgg la waaye dëkk bi benn marché moo fi am man mi lakkale naa si mi ba am lu ma wute place tey waaw ñi nekk si mbedd mi amuñu pexe te amuñu faneen fu ñu liggéeyee moo tax bu ñuy organiser tamit ñu fexe ba kenn du loru wax yàlla lakkale nañ si waaye giñuñu ko kenn dañuy xam ne dogalu yàlla la rek dogalu yàlla rek ndax bëri nañu yor ay place si mbedd mi lañ newoon ba yor seen i place tey kon kenn du ko giñ ay naan waa mbedd mi laak fii dafa xat ak courant dañ koy delloo si yàlla rek waaw dañ koy delloo si yàlla rek. waaw métti rek métti rek ndax gars yi bëri am na ñoo xam ne génnewuñ dara. seen place dafa lakk ba jeex tàkk te am na si ñoo xam ne ci kenn si seen bagage yooyu lañ yoroon seen kër quoi yaak sësuñu ci kenn sësuñu ci kenn am na ñoo xam ne sësuñu ci kenn te lañ di daan seen doole di dimbali seen njaboot instant yii nii seen bagage yëpp lakk na waaw. jot na jot na jot na ndax bi du du lakk gi rek du du du première lakkam quoi lakk na fi ay yoon yoon te même wax bi la ñuy wax rek bu jaale comme noon rek lay demewaat waaw. taabal yi daanaka am na si yoo taabal yi tamit gaa yi fi nekk dañuy wut comme ñun ñu yori place waaye comme li ñu wax mooy comme bu ñu wàccee ñu def ko sësale ko ne la bu oto ñëwee mën a jàll mais ñu fi nekk ñëpp ñun ñëpp ñun ñu yor place yi rek ñu nekk si taabal yëpp ñoo bokk li ñu bëgg waaw. mënuñu leen a siis ndax ku amoon la nga gënal ku amoon la la gënal doo toog fii nii nii nii ci télé bi di jaay ñàkk pexe la rek. waaw ñàkk pexe rek moo waral gars yi di toog ci télé bi nii di jaay mais ku amoon la la gënal da ngay yor place comme ñëpp di tëjee ko ubbi doo déranger kenn mais xam nga yàlla daa bind te yemalewul loolu moo tax quoi. xanaa ñu jàppale gars yi rek jàppale leen rek fii bari na ay jàmbaar bañ bañ nañoo jël yëfi jàmbur moo tax ñuy ñëw fii di daan seen doole quoi xanaa ñu jàppale leen rek incha allah man ay saag laa doon jaay ay saag saagu jigéen. mais dara génn dara génn. am na léeg ah, man moom yooyu wax dëgg yàlla du ma si sori quoi parce que daanaka man du ma wax lu ma xamut quoi dëgg yàlla. ñëw naa muy tàkk gis naa gars yi koy dund comme ni ko gars yi dund rek laa koy dund waaye duma ci wax naan ay kii ak yooyu noonu wax dëgg yàlla.